li nga xam ne tey moo ñu tax a jug mooy euh, mbas mi nga xam ne am na si réew mi si àdduna yëpp ah, ñu ñëw doon si def suñu participation boo xam ne dafa ñoo war ah ñu def ko nag euh, defin goo xam ne du politique ah, du mu Mumbai en tant que doomu Saalum Saalum ah, war a jël loxoom dugal ko si biir dëkk bi moo tax mu jël lii tey ñëw hôpital El Hadji Ibrahima Niass jox leen ko pour ñu dimbaloo ko. si mbass mi nga xamne mom mo am ci rew mi tay ñaan yalla ah, yalla mi nga xamne moy tege eh, yalla nañu ko yalla dakal ah, ba ëlëk suñu se tok diko netli nan ane fin 2019 début 2020 euh mbass mu melon ni amon na ci eh, rew mi ah nimbal bi eh, lepp lo xamne rek médicament le masque gants Euh, lañ indi pour jàppale ko ñi nga xam ne tey yàlla tere yàlla bu kaa am Kaolack waaye su kaa amee Kaolack si hôpital El Hadji Ibrahima Niass fa la ñuy daw jëm si. te fa ñuy daw jëm si il faut que ñooñu tamit ñu aar leen ba ñoom ku fi mën a ñëw ñu mën a fàggandiku man laa accueillir si accueillir boo xam ne day jaar yoon. moo tax maître mu ne balaa maa jug di dugg si daar yi baa ma jug di dugg fenn naa dem fa nga xam ne ku jaaxle fa ngay daw. ma dem aar ñooñu ba pare doog a génn nag wax ak daara yi doog a génn wax ak handicap yi doog génn wax ak euh, mère de famille di ñaan yàlla euh, lii ñuy dégg daal yàlla na ko fi buur yàlla dàq Kaolack yàlla nag continuer si zéro cas di ñaanal personnel u hôpital bi yëpp di ñaanal population hôpital bi yëpp jàmm ak naataange ak wér yàlla na leen dégg rek ñu ko si am waa Kaolack nangaat. donc di gërëm di sant euh, direction hôpital bi di gërëm di sant personnel de santé bi.

donc elle ne fait que répondre à l'appel du président Nous, au nom du président nous sommes des citoyens quand le président appelle c'est pour nous mais aussi nous que des au nom de l'hôpital au nom du personnel de santé parce que tout simplement quand elle nous donne ça elle nous protège et en nous protégeant elle protège les populations donc nous, sommes koy citoyens ko yalla na man lu ko raw déwén. du ren du daw du daw jéeg c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois ambulance médicalisée bi dend ak yéen bi fi ñëwee matu ñaari weer lii it ñun ñoko ni maître lii ñu soxla parce que les personnels qui sont au devant doivent être protégés té li mu jënd yépp ci protection personnelle boobu la bok donc diko ko diko sante di ñaan yalla yalla gën ko taxaw parce que mu ngi taxawu Kaolack mu ngi taxaw wa hôpital ma ci profité nit di gërëm hôpital bi médecin yi ak personnel administratif bi parce que bi ka bi di njëkk am man newuma fi woon absenté na wéx lépp équipe bi ñoo ko coordonné def ko taxaw àndandoo nekk comme un seul homme lii du wax moy dëgg ba hôpital njëkku ñoo jokk té ñoo ñaan yalla résultat yi ñu am continuer parce que état manul lépp bu mbir amé yow da ngay sét sa déem ak sa sidém nga boole ko nga taxaw